Richard. asalaamaaleykum mbokk ñuy seetaan gannaaw bu ñu sante yàlla julli si yonent bu tedd bi di gërëm suñu waajur yi am di jaamay dëkkandoor yi ak képp koo xam ne jamono yi yaa ngi jàkkaarloo QTV di si daan seen programme jigéen sa su nekk ngeen di si ànd ak seen doomi ndey Linguère te nag macha allah ñu dalal ay gan yoo xam ne ay ndaanaan leen kenn du leen laam-laamee si réewi Gambia ñu xamee leen si son weekend Gambia tey nag ñoom leen dalal si biir programme jigéen waaye balaa ñoo def dara nag ñu bàyyi leen ñu nuyoo ak askan gi sonna ñu ngi laa nuyu jërëjëf nañ la ñu <laughs> ah, ngi gërëm waa QTV ñu ngi seen audience bi. Mm-hmm. and um, su ko defee Mass Mass Sané yow it ñu bàyyi la nga nuyoo. ah ñu ngi askan bi ñuy seetaan ñëpp um, audience yi audience QTV bi ñu ngi gërëm ñëpp and di leen wax jërëjëf. thank you for having us. thank you su ko defee Matilda Sané yow it ñu bàyyi la nga nuyoo. asalaamaaleykum gaay QTV ñu leen daan nuyu di leen gërëm si amee bi ngeen ñu amee tey. am eh. na solo seen sensé rafet na am nañ kontaante lool buñ leen amee si programme yi jigéen su ko defee duñ def dara rek ñu dañuy faral di dégg am fashion weekend Gambia dina nekk for the first time am ñu ko dégg waaye tamit dina nekk loo xam ne tamit nit ñu yàgg nañ di ko dégg di xam si lu ngeen di yëngu waaye comme ñu am lu ñu leer rek si biir programme yi jigéen bu ne fashion weekend Gambia lan la tekki. waaw ñun daal plateforme boo xam ne. Mhm. Ah, dañ ah, gis designers yu nekk biir Gambia. ñu fonk leen so liidaal daal pour support ak euh, showcase ñoo xam ne euh, xam nañ ne xam nañ seen métier and deserve nañ attention boobu just pour ñu mun a woon lan la ñoo def euh, also pour promote Gambia as tourism destination because ñun mhm. dañ proud si suñ dëkk bi dañ proud si Gambia yëpp luñ mën a offer si loolu lañ taxawee naka nga naka ngeen mel ak tourism bi naka la fashion bi mel foofu noonu waaw ah moom dafa important because ñu bari ñu dee ñëw dañoo ñëw jënd mbuba gis Gambien si niñ sanse an loolu yëpp dafa mel ni Gambien miit la waaw waaw ah, waaw waaw am na yenn designers yoo xam ne duñ waa Gambia am na ñenn ñoo xam ne biir Gambia lañ nekk waaye duñ Gambian ah. passé waaye bokk nañ waaye dañ teg ne lii daal is dara loo xam ne part of suñ culture bi la niñ de solo niñ am like look bi colors yi mhm. creativity bi so loolu daal loolu lañ taxawal dëgg foofu leer na nañ su ko defee Mass Sané yow it ñu laaj la rek dégg nañ da ngeen dee train ay ndaw nga mu ñu see wax tuuti rek waaw comme ni ma ko waxee woon rek um, ñun we so glad to be here mhm. um, fashion week in Gambia um, every year di nga gis designer bu es bu bu ñëw so man li mooy suma fourth time fourth year do in a row comme maa koo def so amal na ma njëriñ torop su fekkee nit mu ngi seetaan mi nga xamante ne upcoming designer la au staff mhm. ma fiil ne mu fiil ne comme li amul njëriñ au staff like that ma ko encourage pour mu dugg si ah, because through fashion weekend la ma waa Nigeria gisee ma dem represent Gambia Nigeria ah, Glitz tamit through fashion weekend Gambia bu ma dem Europe tamit dama si façon si dëkk bu nekk nit ñi dañ ma dee nañ la designer nga Gambia and stuff like na ma ak client yu bari especially comme clients yi tubaab yi comme manager Coco Ocean bi and stuff like that comme ñoom yëpp fashion weekend nga amee lañ ma gisee last year before last so maa ngi feel ne it has a lot advantage like you just don't see it comme doo toog rek mhm. comme nga nga ne comme lii nii la mel rek comme nga koo tuutil o comme lu dem leen mhm. ku nekk si li ngaa yëngu si foofu nga war a ful ak fayda ah, mhm. pour nit ñi ñu mun la faa ñu mun laa apprécier so fashion weekend nga amee always man li wax rek ñu leen a gërëm si ñu nekk di jàppale ah, upcoming it um, fashion designer be it model be it makeup artist because am na gis even makeup artist yi dañ leen di change as years goes by ak yooyu noonu yëpp dañ leen di change so they doing a really good job though. am na solo am mm. na solo loolu neex naa dégg mm. su ko defee dinañ si yéen rek Matilda ñu laaj la naka nga def ba àgga si fashion um, weekend Gambia fañ nga door ba àggsi si ñoom. ok man business bi ma ko dooree it's just two years. So I feel Nascent platform, it's selling Gambian designers outside. Mm -hmm. So I tried so much. I, last year, I, I wanted to do it while I'm late a bit. Mm -hmm. So this year, man xaaral ma try suma kéemtalaay kàttan bu bokk si lii because gis naa njëriñ ñeneen suma ñoree ñu ma xam ne ñoo ñoo laa fekk si si business bi naka lañ nekkee mhm. di go international yi comme maas ñu waxee ni ñoom Paja yëpp mhm. they represent Gambia somewhere dem nañ Ghana dem nañ Nigeria and stuff mhm. so I feel ne even once you you did it you did this it's a selling point so it's a platform boo xam ne man suma bopp I'm so happy I'm so excited oh yes I so I'm so excited to be part of this great platform guys they're doing an amazing job so pour man to be part of this it's an achievement waaw am na solo su ko defee Sona Soma nga baalal ma dama miin Sona Sona <laughs> <laughs> su ko defee ma laaj la rek am ñan ñoo bokk si ah, wala lan ngeen di waajal parce que dégg nañ ne am na lu ngeen di waajal mm-hmm. su ko defee ñu bëgg a xam lan ngeen di waajal fashion weekend Gambia lan la mm-hmm. ñuy waajal waaye balaa loolu kañ ngeen mm-hmm. taxaw a ah, ñun ñu ngi ñu bii yoon mooy eighth edition bi bu so lii eh, mooy eight eight bi buñ ko def ah, ñu ko def sixth and seventh of December Um, so ñu ngi waaj daal pour ini tey moom maa ngi ànd I have the privilege pour ànd two mm-hmm. of our selected designers dégga dégga léegi dañ dee am comme applications si bari yoo xam ne mm-hmm. mun nañoo taana the best of the best ñu am the ideas the most hard working ñoo xam ne dégga dégga ñii we proud pour woon mm-hmm. ne as a Gambian ne ñii ñooy represent Gambia comme ni maas waa dañ gisoon lu neex a neex a neex si uh, timeline am bi ñun nañ ko gisoon on social media first first time bu mu ñëwoon sax ñu ñoo ko call ñu ne ko ak tii tiitam ah, dama leen kooloon ma ne dëgg dëgg looy def daf ma nee ñoom tam ñu exchange ñu wax ne waaw ñun tam ñu ngi gis loolu naa def noonu lañ tasee so ñun ñu ngee waaj pour indi leen more mhm. of designers yi yoo leen xam mhm. and that you guys love already and more si designers si yoo xam ne xamagum leen mhm. waaye we a confident ne dinañ leen neex. am na solo soo programme bi ngeen di waajal nii. Mhm. fan la ak yéen mën nga ñoo jox date bi. yeah sure so 6th of December Friday 6th of December. Mhm. Saturday 7th of December. each day dañ lay woon different designers. Ah, so ku ko ne ay da nga tànn bés booy ñëw oo nga ñëw. full weekend bi loolu moom mooy full experience bi. ok pour mun a xam lu fay dox. waaw ok dafa am ñeneen yu bokk si si programme bi nii apart from yow. yeah absolutely mhm. ah, man ñun suñ main management team bi. Mhm. mooy um, Lena Gray Johnson. moom also known as uh, Lena Nyan Photography moom mooy co bi so moom moo startoon moom ak benn si xaritam bi suñ beneen designer uh, F Dramé. Mhm. moom tam Gambian designer la woon moom dafa bëggoon a def show. mu change to after buñ séntu ñu gis ne am nañ a few friends yu nekk designers ñoom ñëpp ñu mbooloo noonu la yëfi startoon mm-hmm. so Lena co-founder bi Adiatu Konte ah, moom tam she's ah, Daraja. Mm-hmm. Daraja bags maa ngi indi suma Daraja bag bi so ok <laughs> di ko téye loolu i I'm really really proud. ok ah, ak Annie Acheng so ñun foo. ñoo nekk main management team bi ñun ñoo dee try to organize uh, support mentor mm-hmm. and kind of arrange everything mu ngi nekk Coral Beach former Sheraton. Okay. Uh, foofu lañ ko host. Good night. We've gone around a lot of places. Seven o'clock sharp. Seven o'clock. Gambian time. Foofu la nga jox leen six o'clock. añ leen wax five sax. teel a ñëw ku nekk egsi dinañ leen entertain <laughs> balaa time dëgg <laughs> am na solo su ko defee maas ñu laaj ñu laaj la rek parce que dina di kuy toog di seetaan war a wane ah fashion weekend Gambia waaw maas moom lan la fa war a def dama bëgg nga wax a Gambien si pour suñu gisee góor yi si fashion um, weekend Gambia naka leen war a gisee gars yi yeah am moom am ñëpp xam nañ ko Gambien not Gambien sax comme African as a whole la mhm. comme seen mentalité si bu nekk di def fashion comme it's really nii I don't have a problem with that um, because man xam naa fu ma dooree ak lan def mhm. actually man musuma study designing man accounting laa study liggéey naa Gamtel for three years um, am naa experience accounting because dem naa university xam naa yooyu noonu mhm. but then this is what I love to tell my dad have to go find my own way ah, at first gars yi foogoon nañ ne du dem ba den tey sant yàlla maa ngi am ñaari store maa ngi am store suma kër just next to QCell fii nii so ah, mu ngi dem good man Gambien yi xam nañ ma ñu bari xam nañ ma mm-hmm. fii Europe fu nekka xam nañ wen suñ déggee a design it's glitz and glamour so mm-hmm. gars yi xam nañ lu ñoo expect collection bi ñu ngi koo defar léegi tey mu pare probably dina pare balaa end of month pour ñu pareel the sixth um, na woon fa woon rek mm-hmm. nu ñu ko daan gisee rek su demut si kanam du dellu si gannaaw ah, incha allah so lan ngay wax sa moromi góor yi nga xam ne ñu ngi toog te bëgg a dugg si fashion design yi ñuy def nii lan nga leen di ban advice nga am pour ñoom. well my advice um, in every interview comme interview bu ma musti dem is if you believe in something like go for it. Mm-hmm. because comme like ñoom suñ toogee. Mm-hmm. yaa ngi xool nit ki yaa ngi xeeb lu moo def ba den yoo xamuloo kooku lan la am si banque account am wala lan la denca. Mm-hmm. yow mi ko xeeb yow amuloo lu mut ah, loolu nan ak lu demee noonu. so like comme ku nekk li nga bëgg def bul xalaat comme nu ma toogee télé bi fii sax it na am na kum neexut so noonu la so yeah adduna moo mel noonu waaye li am na solo su ko defee ñu laaj la Matilda lan moo la gën a neex daal si fashion weekend Gambia lan moo la gën a neex si ñoom nu ñuy dalale ay ndaw yi di train ay ndaw yi wala di jàppale ay ndaw yi lan moo la gën a neex si ñoom loo xam ne daal bugg nga Gambien yi xam ko ñu ñoo jàppale Gambien yi dëgg la Gambian designers yi di ñoo jàppale gaay mm-hmm. because ñoom every year dañoo select te suñ la selected it means a lot to you because ñoo xam ne naka leen seen application nu mu dee defee is like <laughs> it's too much protocols loolu laa dee wax exactly <laughs> okay so to be part of it as a fashion designer loolu is an achievement mm-hmm. ñoom like I said they doing an amazing job ñu ngi def seen kéemtalaay kattan pour dimbale ñun ndaw réew mi mm-hmm. jaay suñ suñ liggéey bi si biti mm-hmm. so nit kuy def loolu amuloo dara loo ko def di ko gërëm di ko sant. am na solo waaw am na rëccuwuloo daal li ngay liggéey ak ñoom. non non rëccu ma si dara am na solo <laughs> su ko defee sooma ñu laaj la rek ni xam naa ne lu des suñu waxtu bi ay minutes yu néew la te am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi leen war a dalal su ko defee ma la laaj la rek ah, fashion weekend Gambia let's say in five years sa dafa bëri in two years fan nga fan nga seen bopp ak ah in two years dinañ gis suñ ten year anniversary mm-hmm. ñu ngi plan lu bare bare bare te gars yu fi nekk gars yi ñoo train du make up artist yi du models yi du backstage people yi comme ñu dee def photography ñu dee def videography mm-hmm. together ñu ngi plan yu garaaw a garaaw ñu ngi gis ne industry bi mm-hmm. mu ngi gën a am tafa taxawaay ah, nit ñu ngi gën a am confidence Ah, ah, nit ñi ñu ngi gën a fonk seen liggéey mhm. seen métier bi mhm. ku nekkaa ngee jàng ñu ngee jàng naka la ñoo mbooloo ah, lu ñoo wax mboolooy doole so loolu moom daf ñu neex and in two years time gis nañ ne plateforme bi ak Gambia si mhm. boppam tourism bi fashion tourism bi dina gën a am taxawaay dina gën a am doole and we're just looking forward to loolu am na solo su ko defee maas ñu bàyyi la nga tàggatoo Um, di gërëm everybody thank you guys for watching am um, ñu nekk di seetaan yëpp thank you for having us it was a nice show sant yàlla am mm-hmm. um, di och uh, askan bi yëpp ñu ñëw seetaan si six to seven at Coral Beach Hotel um, it's going to be an interesting show this year is Afro Revolution um, mm -hmm. I'm sure going to be big the is so it's going to be big going to be wild na ñëpp ñëw seetaan si thank you. ah, ah yi comme ni leen ko waxee rek seen jigéen tey ñoo am fi fashion weekend Gambia ñëw nag bokk si jigéen waaye nag dinaa laaj Matilda si kàllaama soose balaa moo jógee nga mooy lee alka fenne fenne kana kee say lafi daaloon na mu nekk naa kee alla doo ko kuwo ok ko yaafo ñamen doron mhm. fashion weekend Gambia wala be kere wona te kan December 6 and 7 ok so ate pour ka Gambia designer ke makoy wasuru kela do ko fintini duniya kon like uh, kake nyim ku, ku fenka balti mo be kanale mm -hmm. yela yemin do ku yatandila ha. so mem badin mandin ko dim everybody gambian wol ye be ye be kumandele naje mm -hmm. is the 6 and 7 abekala coral beach okay. former sheraton abekala okay. walto time almost 7 p.m. Lati. Okay, Gambian time. It <laughs> na okay. yana yana Gambian support ila doko la because ni doko manke doko sone adi wata doko kaliatal. Ha. Gesere yata. Ah. Te di gërëm suma suma customers suma style style with ladies. They so supportive. Thank you. So ma aga fi tay mhm. ñom ñota. ñom la. Suma ñawkati maa leen gërëm. bàyyiwuloo kenn suma famille bi they all part of this. am na solo te man personally suma pa ñawkat la woon. ok so it's something loo xam ne. loo doon la daal waaw da nga jekkale sa papa lu doon <laughs> def. sa na solo moom fu mu tëdd yàlla ko yàlla yërëm. amiin yaa rabbi so part of me right now lu may def. dëgg la dina ak am na solo su ko defee soo naa ñu bàyyi la nga ok ñu ngi la naa gërëm ah, ñu ngi gërëm waa Jigéen mm-hmm. ak suñ team bi yëpp fashion weekend Gambia suñ designers si suñ models yi. Mhm. suñ makeup artistes yi ñu bokk si uh, réewi Gambia. am na solo jërëjëf yéen tam maa ngi leen di gërëm gis ngeen ne macha allah on the six seven si la seen programme bi di am kon nag ñu ngi leen di ñaan yéen ñëpp ngeen dem teewee bés boobu noonu mbokk yi ñu dem ak suñ dellusiwaatee continuer programme yi jigéen. allo naka la mën a amee nii la kii di amee network man aw ma network. waaw maama Linguère yow la xew. Qcell ñoo fi njëkk andi 4G LTE ci biir réewi Gambia bokkal leen bi ngeen mun a bànneexu internet gu gën a gaaw a màgga e fu ne. jarul coono jarul génnee sim card dialaw star 335 hash nga network gu gën màgga gën yomba te gën gaaw. Qcell ah. suñu bos. ñun ñoo xaali yoon bi ñeneen toofa mbokk yi gannaaw bu ñu jógee si break bi nag ñu continuer programme jigéen fii si QTV comme ñu fi amoon ñi nga xam ne ñooy façon weekend Gambia su ko defee nag jamono yi ñu ngi amaat beneen mbootaay ñu xamee leen si jàppale jigéen waaye nag duñu def dara lu dul bàyyi leen ñu nuyoo ñu commencé ko si ana Anna ñu ngi lay nuyu. asalaamaaleykum ñëpp ñoo déglu ah, maa ngi tudd Anna Sène Ah, man Qcell lay liggéey waaye maa ngi ànd ak yeneen jigéen ñi nga xam ne ku nekkaa ngay liggéey si yeneen yeneen boor xaaral ma bàyyi ñoom ñu ñu nuyoo ba pare ñu doog a wax mbootaay bi ñu ko boot. fan li ñuy liggéey. am na solo su ko defee du ñu def dara lu dul Iliyaasa yow it ñu bàyyi la nga nuyoo ak askan bi. ah bismillahi rahmaani rahim ñu commencé programme bi di sant yàlla. Mhm. balaa ñoo nuyoo sant yàlla sant yonent bi. mi tax ba bés bii ñu mun koo ñëw teewe mhm. ñuy eh, sante yàlla loolu bu baax tur bi nag Elias Bala man moom léegi ci business rek laa nekk foo ma banque la am na solo am na solo su ko defee du ñu def dara esta yow it ñu bàyyi la rek nga nuyoo asalaamaaleykum Esther laa tudd maa ngi liggéey QCell man it te maa ngi bokk si groupe bi man ok am na solo su ko defee mbokk yi comme ni ma leen ko waxee woon si njëlbeen rek te ñu ngi am mbootaay bu ñu xamee jàppale jigéen su ko defee du def la nag lu doon laaj anti ana bu ne mbootaayu jigéen lan lan lan mooy seen taxawaay. jërëjëf jàppale jigéen soo gisee ñu taxaw si at yu bari si gannaaw saa yu ñu demee lopitaan ñu ne neen dañ de nekk di mbébét ne. suñ morom yi jigéen yi sona nañ si lopitaan yi léegi bu ñu wax ko ay ati at après after loolu ma ma wax ak suma sista si ne leen war nañ see def dara mhm. so bu mu waxee ñoom ñoom ne ma lu rafet la waaye ñu boole si yeneen jigéen ñi mu gën a am solo ndax xam nga mbooloo mooy doole mhm. lu ñu tax a jóg mooy ne dimbale jigéen ñu nekk si lopitaan yi yenn saa yi di nga gis ku ku wasin du am lu mu lu mu lu ma see doomam bi bagage yu mu soxla su wasinee du ko am yenn saa yi tam nga dem si lopitaan yi di gis ne conditions yu nga faa fekk tamit mun naa gën a baax ba pare tamit xam nga facilities lu ñu soxla comme ndox bu tàng di nga gis ne dangaa dem soo yóbboo nit lopitaan nga fekk ne ndox bu tàng sax dangaa génn si biti nga jënda ah, siwo mhm. nga jënda pot nga jënda yëpp pour dem sangu te lii si loppitaan yu bari la xew ñu commencé loolu soo léegi ñu ne dañoo commencé ñuy ñuy defar ay baskets nga xam ne ñi nga xam ne ne ñëw doole mbaa ñu ko soxla suñu wasinee ñu jox leen basket yi basket yi nag lu nekk dina si nekk sanitary towels mooy ay pad yooyu na si nekk buba yi nga lu masee sa doom bi ba si Ovaltine bi nga naan sax su wasinee ees pour loolu lañ commencé woon ñu ngi taxaw nag at bu passé lañ commencé boori septembre mhm. waaye depuis boobu ba léegi wër nañ lopitaan yëpp dem nañ Banjul dem Serekunda dem nañ Banjul Nding dem Birkama dem nañ Sukuta ñu ngi wër daal fu mu nekk nii waaw te fu ñu dem ñu jox leen ay basket yenn saa yi di nga dem suñ demee si lopitaan yi ñoom dañ ñoo wax luñ soxla mhm. suñ gën a bugg a jàppale ñu dimbale leen di nga gis ne léegi fu mu nekk nii am na lopitaan yu bari yuñ dem ñu si uppa yëpp dem ne ñu jox leen water dispensers mhm. parce que pour ndox buñ naan sax suñ masinee problème la sa mbokkay suñ ñëwut so si loolu lañ bugg a loolu lañ waaye ñu ngi bugg a taxaw si yeneen mhm. xaaral ma bàyyi Elias mu mu mu mu dimbale ñu si wax ñu lan lañ defangum ak fan la ñoo fan la ñoo dëgg la loolu moom wax diggaa ne xela neex naa dégg ndax ku dem lopitaan bu dee jigéen sa yaram daf dee daw su yàlla defee na yéen ngeen dem ba lopitaan di gis lu jigéen yi di dunda foofu ba mu jaral leen ngeen indi mbootaay bi kon ñu ngi leen di gërëm si kaw loolu su ko defee Iliya sax ñu laaj na rek comme ni ko Anna waxee dem ngeen Brikama dem ngeen Banjul dem ngeen Serekunda ki ne boori Mayemba wala mu nekk boori Kanuma maanaam si dex bi dina laaj boppam ñii kañ la ñuy egsi si ñun ndax yéen a ngay xalaat lu mel noonu ok um, jëf ci laajte bi am ana li wax moom daanaka wax na lu bëri wax na euh, li ma bëggoon a wax sax yëpp ci gàttal waaye ba tey rek dafa miiti en tant que jigéen xam nga nga dem lopitaan gis sa moromi jigéen mhm. muy sa yaay muy ko mun a jur muy sa sista nga jis leen ci yenn anam yoo xam ne xam nga ñun xaaruñ ci nguur gi rek dañ toog ne ñun jigéen lañ jigéen benn rek su amee lu ko miiti rek yeneen jigéen yëpp ñoo koo fiir soo biñ ko commencé comme li ana wax oo nañu ñun jigéen nañu a ah, man di dem naa si lopitaan bi de xam naa ne da ngeen dee dem mhm. waaye li ma fa gis seddul xol te dafa miti waaw léegi nañ seet ñun ñun individual individually mhm. ak collectively luñ mun a def pour jàppale suñ sisters yeeg suñ doom yeeg suñ ñiisi yeeg ba ci suñ yaay ñi nga xam ne ñu ngi ci lopitaan surtout nag ci wàlli njur mhm. waaw wàlli njur gi moo tax ñu gën a jug du ne pour jigéen ñi rek waaye dañ seet ne ci lopitaan yi Linguère boo fa demee mhm. nga gis jigéen bu ëmba ñëw pour wasin si mhm. comme li nga wax rek jógee feneen ak feneen ba ci ñu jóge ci nga xam ne sax fii soriwut Serekunda Banjul area bi mhm. nga gis ni ñoo mel seen melokaan ci lopitaan bi daf laa métti te saa yoo demee man ma dee wax ne jigéen ñi fu jaar ñuy dem di seet liy xew ci lopitaan yi waaw saa yoo demee génn rek mhm. di nga gis ne yow si sa jëmi bopp mhm. am na loo war a mun a def te soo ko defee di nga save life di nga dalal xeli jàmbur mhm. di nga dimbale xam nga yaay ji ak xale bi ñun nag ci loolu la ñoo yëngu li nga wax tam ñu ngi koo xalaat waaye xam nga lu nekk dafa am fu moo commencé biñ commencé two years ago liñ doon def mooy ñu joxe basket bi basket bi comme li Anna wax li fa nekk mooy xale bi li moo commencé from bi mu juddoo ak yaay ji ci meew suukar Ovaltine yooyu yëpp dañ ko dee soxla mhm. waaye biñ gisee ne loolu rek doyut biñ demee visite yi ñu gis ne lii rek du ko sottal xam nga joxe basket rek warut a em foofu noonu mhm. ñun war nañoo mun a yëngu ci yeneen ak yeneen surtout suñ amee ku ñu jàppale ah, te loolu moo gën a tax tey ñu ñëw fii pour ut ku ñoo jàppale xam nga def nañ waaye liñ def suñ kéene ëpp na foofu waaw suñ jógee génna mm-hmm. waxtaan ak nit ñi mm-hmm. waxtaan ak jigéen ñi eh, ba pare surprisingly góor ñang ñoo jàppale ci ci ci suuf waaye dañ bugg mu gën mu gën mu ëpp foofu daal ñu bugg a dem ci beneen level boo mm-hmm. xam ne bii dinañ ñe jigéen ñi defuñ ko sax pour gisteel soo gisee sax ñu ñëw which is very important pour ñu eh, pour ñu wax ko loolu lu baax sax boo koy def da nga koy feeñal waaw koy feeñal lu baax da nga koy nuba da koy feeñal ndax keneen mën a def lu mel noonu underline ne mhm. du pour ngisteel xam nga da dañoo dem be foo xam ne dañ gis ne mhm. ñu ni neen duñ ko mun a sottal ñu bugg a koo yaatal nag mhm. yaatal ko bi nag moom du ñu ni neen ñoo ko mun a wax foog ñu génnee ko comme fu mel ni fii su ko defee ñu xam ne ñii kat ci liñ nekkoon dañ bugg a dem feneen mooy gis jigéen ñi ñuy dugg ji wasin te duñ sonna mhm. xam nga eh, li nga soxla ci sooy wasin nga am ko nga jóge boor bi nga jóge beneen boor dañ commencé boor bi mhm. waaye suñ intention ak suñ plan mooy mhm. ñu wër Gambia képp koo xam ne jigéen nga muy doom muy mag muy raka muy suñ ñii seeg ñëpp ku nekk jot ci li nga xam ne jàppale jigéen looloo leen tax a jóg ñun loolu mooy suñ suñ ite ci loolu la ñoo yëngu ñu bugg a nag tey ñëw pour wax mhm. li nga xam ne loolu lañ jot a defagum te xeeb ko mhm. waaw ñuy ñaan nag yàlla mi nga xam ne moo am kàttan ak ñi nga xam ne ñu ngi toog seen kër yi ñu baaxan ci dëkk bi ñoo xam ne ñii dañoo jóg indi ñu seen alal mhm. te bugg rek ñu def te yàlla rek tax te sax bugg ñoo feeñ soo dañ bugg a nag ñooñu nga xam ne ñu ngee def ak ñeneen ñi nga toog ñu xam ne sax ñii bugga nañoo def waaye xamuñ ci ay loxo yu wér yuñ ko teg loolu tamit am na fi ñu bari looloo leen teree def loolu lañ tax nag loolu tax xam naa si kanam tuuti dinañ joxe nomba boo xam ne in case ko xam ne daal bu gën a a dimbale ah, mu wax leen fan lay jaar foo xam ne daal kenn du wax joxoon naa mbaa jot ngeen ko loolu moom dañ ko bañ sax lingeer bi am account nomba dégloo soo xam naa balaa programme bi di jee ah, bi in case ku leen bëgg a jàppale su ko defee li ngeen di def am na solo ndax toogu leen rek xaar nguur gi ah, waaw dem dem ngeen gis na ne daal jigéen yaa ngee sonnate soxla ngeen soxla ne ñu leen dimbale mhm. ngeen ñëw ak xalaat boobu noonu xaaru leen nguur ko nag loolu ñu ngi leen si ñaanal yàlla ba tax na dara boo demee tey lopitaan yi Banjul jigéen yi fay wasin bëri nen waaye dama xamul jàppale jigéen moom naka leen dee def ba mun a dimbale ñi nga xam ne ñoo fa wasin nu mu dee demee léegi fu mu nekk nii comme ni nga ko waxee rek every day ay hundreds ñoo dee jur kay soo mënuñoo kéeta pour ñëpp waaye luñ nekk di def mooy comme ni ko tubaab bi di waxee one step at a time ñu try as much as possible su ko defee ñu mun am at least su dee si hundred boobu sax fifty mm-hmm. ñu jox leen lu baax because dañ bugg a package bi tam mu baax buggu ñoo jos defar hundred def fa few items rek te nga xam ne loolu du mun a satisfy ñooñu noonu sax mm-hmm. soo loolu moo tax comme ni ko Elias waxee ñu ngee ngi te nit ñu dimbale ñu tamit lii mun mënuñ koo def ëllëg mënuñ koo def ñu neen mm-hmm. soo comme ni ma ko waxee dañ dee try pour jël amaan boobu noonu amaan bu em ñu feesal baag bi feesal package bi ba baax and then ñu continue waaye in the future mm-hmm. ñu ngey ñaan sax ne ñu ngey xalaat ñu ngey hope ne <laughs> dinañ mun a kéeta pour lopitaan bu nekka tout lopitaan si si benn mont mm-hmm. loolu moom bëgg nañ koo def waaw léegi bëgg naa xam tamit dafa nekk ay bagage yoo xam ne da ngeen dee dem rek ñu ne leen ne diw tey dafa wasin mm-hmm. ngeen jël bagage bi jébal ko ko na ab docteur moo leen dee bindal ñi nga xam ne ñoo di saaf li ngeen di joxe ni naka la dee demee si groupe bi am nañ ay nurses ak ay doctors tamit ñu fa oh, nekka so dañu dee jox feedback te at least am nañ estimate of each lopitaan mhm. ñaata nit lañ dee mun a ñaata nit a dee wasin si weer bi oo si dee bi mhm. so dañ dee mun a am an idea of ñaata nit lañu war a mun a joxe si lopitaan boobu noonu so loolu moo ñu dee dimbale as well ok mhm. su ko defee soxna ñu laaj la rek digga la jàppale jigéen tur bi rek moom ku ko dégg rek di nga xam ne ñii moom lii leen bëgg a def waaye dafa yombul comme li ngay wax rek programme boo gis wala jafe ab ab mbir moo gis rek am na jafe-jafe tey buñ leen doon laaj yéen nan mooy seen jafe-jafe naam bugg ngeen ku leen jàppale waaye du ñàkk am na jafe-jafe yoo xam ne yéen a ngi koo jànkuwanteel suñ bëggoon a xam tey leen yéen lan mooy seen jafe-jafe ndax mun nga ñu koo wax jafe-jafe bu ñu gën a gis mooy ne facilité si seen boppa parce boo gisee ñu jóg dañ bëggoon a wàññi infant mortality rate bi mm-hmm. di nga gis ne xale yi léegi ñu ngee dégg saa yu nekk ñu ngee dégg am na ñuy ñuy matu ñuy te duñ si mucca mu ngi gën a bari bu luñ ko daan dégg tuuti la waaye léegi mu ngi gën a bari trop sax léegi ñuy ne xaaral daal ñu jéem a dimbale su dee bee benn life lañ siif sa tane na mm-hmm. te loolu mooy ne liir bu juddu ees soo ko lu ma see sufu setut mm-hmm. da nga koo jox jaam si nga xam ne mun naa demaale moom soo demee si lopitaan yi dañ laa wax ne xale yi léegi suñ juddoo duñ leen sanga soo waxee ñu ne bu ñu waxee nurses ñu ne ah yenn saa yi ñu am hypothermia mooy xale bi dina liw boo ko sangee mm-hmm. waaye soo gestoo bi si biir mm-hmm. suñu amoon ay wota hita ñu sanga xale yi comme yeneen lopitaan mm-hmm. dara du leen jot soo loolu mooy facilities yi ñoo fa nekkul soo loolu ñu ne neen ñun ay professionnel yu bari ñoo bokk si groupe bi ku nekkaa ngay liggéey nine to five waaye dañoo jël lu ñu am ñu dajale ak ñu lu ko Ilias waxee ñu ñoo ñu jàpp si lii nag bari na da nga gis ne yéen a góor yi dinañ ñëw ay compagnie ak yooyu dimbale ñu ñu ñu enu yëpp def ko si basket yooyu waaye lu ñu gënal mooy ne lopitaan boo dem wanag bu nga duga war naa mun a set. Mm-hmm. nga am ndox bu tàng. Mm-hmm. am shawa bu nga sangoo boo wusinee ba pare nga sangu bu set mun a delluwaat sa kër. waaye lu xew léegi mooy ne ñu bari dañoo dem lopitaan ñu ne laa demal sa nga sangu te xam ne ñu si nekk miiti na soo jafe-jafe bu gën a miiti mooy ne nit yi war nañoo am bagage pour suñu wasinee pour dimbale yaay bi ak liir bi waaye fu ñoo wasinee tamit war nañoo mun a make sure is a safe environment pour yaay bi ak liir bi ak basic facilities wanag mm-hmm. yu set am am cleaning supplies ak yooyu yenn lopitaane boo leen laajee nañ la ne dimbali ñu suñ saabu yooyu ñoo raxasee ak yooyu dafa jeex so di nga gis ne def di am gaap government dina def mm-hmm. waaye suñoo xaar government su lu nekka ñu ne ñëpp suñ mbokka yaa fa nekka soo ne facilities tamit nit nañ upgrade soo buggee dem fee na nga ne xaaral ma dem rénover seen baat bathroom bi mm-hmm. xaalis bu bari la laaj soo loolu mooy suñ jafe-jafe bu ñoo encounter beneen jafe-jafe mooy ne frequency bi di nga gis ne suñ basket yi benn bu nekk thousand dalasi la mm-hmm. dinañ la jox paan jox la siwo jox la daypa jox la rapa mm-hmm. jox la yére yi nga sol jox la pad hmm? jox la yëpp mu si biir léegi ah? dinañ leen woon basket yu ñu dee joxe te dañ dee def ay drives sak yooyu sponsor basket suñ xariti ku nekk jàppa si hmm. def benn basket ak yooyu so dañ dee def xam nga basket bu nga xam ne boo ko jëlee di mun ngaa dem doo am problème mm-hmm. daay paa yëpp lopitaan bi suñ la ko joxee mm-hmm. soxlawuloo dara pour yóbbu foofu ah, waaye fréquence bi du mun a dem mm-hmm. parce que di nga gis ne saa yu ñu demee ñu joxee fifty basket loolu fifty thousand la so ñun nañ di ay once every quarter lañ nekk di ko def lu ñu gën loon mun nañ di ko def every month comme ni ko ah, esta waxee mbaa twice a month ñu si kaw gi tamit wuñ leen ñu ngi bugg a dem foofu waaye xam nga boo commencé lu mu dee wax dafa xaw a métti ba pare fu mu nekk nii di nga gis ne soo demee place yu mel ni Brikama di nga gis ne referral hospital la mhm. ñuy jógee si kaw gi yëpp ñu bari foofu la ñoo dem soxla nañ ndimbal soo si loolu mooy jafe-jafe bu ñu gën a am te moom lañ bugg a nit yi gën see téye parce que ni ko Elias waxee dañ make sure ne ubbi nañ account register association bi mhm. xam nga pour lépp mu mun a leer am nit yi bugga nañoo dimbale jot moo dut am mhm. ak si lu uur léegi moo tax ñu ne ñu ni neen ñu dimbale wante léegi képp ku nga xam ne jigéen nga mhm. te bugg ngaa dimbale sa moromi jigéen soo demee fu ngaa wasinee nga gis ne fii daal am na am na lu des mhm. mun nga ñoo kool nga ñëw ah lopitaan bi gis nañ lii ak lii ak lii suñ leen mun ne dimbale lii ak lii dina baax di nga gis nga def yenn saa yi ñu la ah fu ñoo fu ñoo wasinee des faan lañ soxla mbaa dara xam nga mm-hmm. yi ngaa xeeb noonu yëpp dina dimbali nit ah, ak ay oxygène ak yooyu leen mm-hmm. di nga gis ne lu gën a important fu mu nekk nii Banjul bëggoon naa suñ mbokki noos yi nga xam ne ñu ngi bokk si association bi ñu ñëw waaye unfortunately tey mm-hmm. free wuñ di nga gis ne simple exemple mooy neonatal unit bi soo amee complication sa doom bi mu ngi juddu less than 30 weeks mm. suñ la yooboo si neonatal unit bi am nañ incubators waaye incubator bu am oxygène amu fa déedéet kay. loolu dafa daw yaram loolu xam nga ñun ñëpp suñ mhm. si jógee ñu make sure ne government ñu mënut a lijjanti loolu ñun ñu dimbale. parce que mooy ne liir bu juddu. Mhm. amuloo mënuloo nokki. Mhm. suñ la dugalee si incubateur bi amuloo oxygène. chances pour nga make ko à very slim. soo dañ la ko dee ne la chances à slim parce que incubateur yaa ngi fi amuñ oxygène soo soo complication xam nga basic things like that. ñu jéem a try si loolu leen nga xam ne. lopitaan yi ñu am basic facilities pour suñu jigéen ñi daal. lu leen mën a dimbali ak aar leen. la loolu am na solo te am na yaakaar ne ñii seetaan programme bi dinañ si bàyyi xel bu baax a baax mm. ndax wax gaane yàlla li yàlla xam doy na rek. Mm. waaye ñu baax ñaa ngi toog jamono yi di seetaan te ñu ngi xelaat fan leen war a dugal seen xaalis. Mm. xam naa ne bu la bii rombee de xaw ma xaw ma fan ngaa dugalaati sa xaalis su ko defee Elias ma laaj la rek ndax place boo dem danga fa dee feka fekk 419 Mm-hmm. yéen mun ngeen naa ñëw ak seeni i place nga seen i am éene pour jox ko ñi nga xam ne ñoo ko yelloo mm-hmm. waaye nag comme lu may wax rek mm-hmm. nit bu gën laa jox dara pour nga jox ko ay bagage ñu bugg a xam ne seen bagage moom képp koo xam ne yéen a ko koy jox rek dafa a joxee dara moo xam noos bi la koy jox na moo xam docteur bi la koy jox pour dankal la daal nga mun koo mun a jox seen bagage yooyu ngeen di joxe waaw soo seetee ñi nga xam ne ñoo constitute ñun suñ groupe bi ku ci nekk comme li ana wax am nañ fa ay nurses am nañ fa ay lawyers am nañ fa ay professional women am nañ fa ay business women am nañ fa ay nit ñu baax mm-hmm. te jóguñu rek tànn ay jigéen dañ tànn jigéen ñoo xam ne ñii dinañ mun a génnee si seen poste si li leen yàlla dénka mm-hmm. ñu joxe rek te yàlla tax loolu façon groupe boobu lañ am mm-hmm. beneen bi tamit mooy dañ am ñi nga xam ne dañ am éni pour dimbale mor seen morom yi jigéen soo sélection yi groupe boobu noonu te sax nag jóguñ rek ñëw ne Linguère kaay nga bokk dañ laajte te biñ laajtee tàngoor ñëpp amoon di same vision ñëpp am di same mission ne ñun lii dañ ci war a jàpp mhm. soo xam nga soo amee association yu mel noonu pour nit di ci def leneen lu dul loolu mhm. du du dafaa jafe loolu dafaa jafe yéen li bagage bi ko dee jox jigéen bu wasin bi si boppam ndax da ngeen ko dee jox docteur bu ko jox akay dañ ko dee yóbbul suñ boppa ah, waaw soo seetee fu mel ni Brikama mhm. dem nañ fa joxe fa ay bagage ah, waaye dañ jee dem distributor ko suñ boppa taxaw xam nga moo tax it mu gën a am solo sax mhm. li ñoo wax rek mooy ji even ku ñu joxut xaalis xam nga suñ amee programme yu mel noonu mhm. nga jël ko as an opportunity yow nga dem gisal sa bopp li nekk ci lopitaan yi xam nga dina change sa mentalité dina change sa perception ba pare sax doo ci xaar kenn mhm. waaw di nga gis ne yow li nga xeeb naan ah, man de lii su ma ko yóbboo joxe ko ci lopitaan bi yow da nga ko xeeb waaye keneen ki nga xam ne comme li Anna wax mhm. nga jud sa doom juddu amuloo lu set loo ko muuree problème bi du instant boobu problème bi mooy bu ñibbee infection bi ak yooyu ak yow yaay ji sa boppam soo amutee ndox bu tàng boo raxasoo boo defaree sa yaram xam nga foofu problème am na fa ah, waxuma sax nag waxi lekk naan ndox bu naan tii wala nga naan meew ak yooyu loolu beneen problème la mhm. léegi moo tax ñun dañ ko jëlal suñ boppa dangaa gis ne dañoo dem ba ci lopitaan bi suñ waxee ak noos bi luñ dee ariñ la du dee yomba waaye nag xam nga bu la yéenay taxee jóg rek dangaa ah, dem ba jeex ah, soo moo tax ñooy demal suñ boppa dañoo dem distributal ko suñ boppa mhm. dinañ dem si nga xam ne ñim ñoo wasin si saas comme ñu wasin léegi ñu joxeel leen ko suñ boppa ba pare dem si ñi nga xam ne ñu ngee waajo wasin mhm. ñooñu tamit ñu jox leen ko xam nga loolu yëpp def nañ ko am benn jafe bu ngeen demee si lopitaan yi déedéet duñ dee am léeg-léeg nag nga dem fekk fa situation yoo xam ne fu mel ni biir kàmm fu mhm. nit war a seetaat la man dama ne sax lii nekkuñ ci forum yi politics nekkuñ ci forum yi xasken wala lifin dañoo ñëw pour jàppale waaye dama feel ne soo xoolee population yi Gambie ak jigéen ñi mhm. niñ mel ak li jigéen di wasin biir kaama surtout nga xam ne referral euh, lifin la clinique la mhm. which should have been a hospital ci suma gis-gis ak su suñ gis-gis waaw ñuy gën a ñaax tamit nguur gi mhm. ñu dimbale ñu ñun soo gisee ñu génn pour ñoom it ñu dégg la. Mhm. waaw pour xam ne ñëwuñ fi pour politique. waaye dañ fi ñëw pour seef suñ siste si. suñ suñ doota si. Mhm. suñ ñii si seeg ak suñ yaay ñi nga xam ne ñu ngi sonn si hospital bi. ñun li ñoo def nii solvut problème bi. Mhm. solve ko in the ne ñun mënuñoo joxe oxygène. mënuñoo joxe deret. kii wasin war naa mun a xam ban façon yi deret la soxla. xam nga ban groupe la bokka xam nga dem na dem war naa dem wasine waruta dem eh, bay waaj a wasin ñuy mm. dem a dem di lijjanti ay deret ak yooyu te boo ko seetloo buñ waxantee dëgg rek te mm. yàlla tax ñu bëri ñu ngee gaañu ci yu demee noonu te loolu dafa warut a am loolu war nañoo passé foo xam ne nguur gi mhm. si boppam moo war a bañ loolu mhm. xam nga di di yónnee xam naa ne métti na euh, laaj na xaalis bëri waaye priorité la parce que loo def éducation beeg yooyu noonu dafa mhm. fekk nga dunda dafa fekk nga wér xam ga noonu la war a demee soo ñu ngi leen ñu ngey usaale opportunité bi pour wax ak government bi tamit ne nañ ñu jàppale parce que neexut nga ubbi Facebook wala nit ko la ne la xale bu am 25 years mhm. moo gaañu lu ko rey daf doon wasin mhm. xam nga am nañ fii ndogali yàlla waaye yéen tam saagante daf ci am te xam nga foog ñu wax ko yéen ay saagante la yéen ay eh, nit ki deret bu mu soxla mhm. mu ngi war a du ñëpp a dem private ñëpp a mënuñoo dem private so ñi mhm. dem si um, public hospital seegi dañ leen war a jàppale xam nga dañ leen war a jàppale gestu xam ne digga digga benn jigéen sax su génnee si àdduna pour yëfi wasin lu métti la dafa métti surtout nag xale yi sax tam mhm. yenn mhm. coono yi jaay jang ko coono dafa affect xale bi dëgg am na solo waaw am na solo kon dafa mel ni yéen daal bu ngeen yóbboo ay bagage tamit di ngeen dee mën a bàyyi xel li nga xam ne mu ngi dox lopitaan bi waaw comme ni nga ko waxee rek du ñu fi politique waaye dafa baax pour comme li nga foofu noonu because xëy na ñoom mënuñoo dem fii dafa nekk béréb boo xam ne ñooy seen bët yi ñooy seen laame yi soo ah, faaw ñu voice out ko rek ah, gars yi mun a dégg soo bokk na si li nga xam ne mooy deret mhm. gars yaa ngi koo joytu foofu noonu ak oxygène bi nga xam ni ak garab ak garab soo yëpp dañ ko war a bàyyi xel waaw yëpp dañ ko war a bàyyi ñu gën cee góorgóorlu rek kay su ko defee esta bu dee am na loo si bëggoon a yokka waaw um, Elias wax na mbiri private lopitaan yi soo bàyyee xel ñaareel soo demee wasini private soo demee private sa whole nine months wala eight months nga dem private mhm. dina am time boo xam ne mun nañ la rifaraat si public hospital bi kay day am so suñ la rifaraat si public hospital bi public hospital bi amul luñ la dimbalee dëgg la loolu beneen wax la so moo tax waruñ ñoo just focus ne oh am naa xaalis mun naa dem si private lopitaan nañ gestuwaat si public hospital si ah, public hospital si situation bu ñu nekk daal ñaaw na ana bu dee am na loo bëggoon a si li mu doon wax rek ah, di nga gis ne lopitaan bu ñoo dem mhm. dañoo kool wax ak nurses yooyu leen mhm. ñoom tam ñu ñoo jàppale mhm. parce que di nga gis ne dangaa kool wax ak matron be yooyu mu ne la ah fii tey lii moo fi am lii lañ soxla ak lii lañ soxla yenn saa yi ñoom dinañ wax ak yow ne la bañuñ dañ amut mbaa supply bi moo jeex mbaa dara waaye dama foog ne basics si dañ ko war a put into place hygiene fu ñu wasinee mhm. foog ñu put ko into place so mhm. suñ focusé on loolu mhm. suñ yeneen i yëpp suñ ñëw daf see tege di nga gis ne yenn lopitaan yi di nga dem lal yi nga faa fekka mm, yàlla xam na darab boo xam ne darab yi nga xam ne yàlla xam na yenn saay yi di nga gis ne kenn a jóg wasin ba pare mm-hmm. keneen ki éeg te loolu dañoo joxante ay feebar ah, da nga ko fee dégg mm-hmm. so ñun basics yooyu government nañ jéem a try ñu ñu upgrade facilities yi ñun mm-hmm. fuñ mun a dugal nañ fa mun a dugal ah, ak dimbale jigéen yi waaye yëfi fraude bu ngi doon wax ñun pour ñu éliminer loolu duñ jee jël bagage ñu dem ba si lopitaan bi ñu teg ko fa ne lii pour ñii la ñun groupe dañoo dem di nga ne benn samedi la ñoo jël si suba ñun ñëpp ko jël free time ñu wóoral suñ boppa ñu dem suñ demee benn lopitaan comme Birkaama mm. ñuñ fa fekk ñu wasin ñëpp ñu jox leen mm. ñu jox leen ku nekk ñu joxal la sa loxo bi mm-hmm. suñ demee yóbbu dispensers ak yooyu mooy water dispensers nga xam mm-hmm. ne ku wasin mun nga am ndox bu tànga mm. ak ndox bu seeda boobu dañoo dem ñu handover ko te loppitaan bi mm-hmm. ñu ne ñu fii lañ ko poosé ñu poose ko da ngay gis ne Banjul dem nañ ñu poosé yëpp foofu si si woot yëpp xam nga ba mu des benn mm-hmm. léegi ku bugg a volontaire bugg a donate mm-hmm. loolu yëpp yaa ngi si biir lu comme comme ni ko Elias waxee nit mun naa gis programme bi mu xalaat ni man a san institution mm-hmm. xam nga corporate social responsibility ah, naa jël lopitaan bi ma make sure ne seen bathroom ci rénovate nañ ko ba mu baax make sure ne am na ndox bu tàng am na ndox bu sedda loolu di nga gis ne dina wàññi rate fa nekka and di nga gis ne basic things like bleach yenn saa yi dafa run out soo soo jëlee ay carton carton ni bleach nga dem nga jox leen ko ah. di nga gis ne sooy xalaat ne su ma ko yóbboo foofu mhm. dinañ ko sàcca waaw waaye su fekkee dañ sàcca xaaf bi sax geneen xaaf bi dem na dimbali na ay yenn nit so di nga gis ne léegi tamit xam nga non si di nga wax ne am na ñeneen ñu ñu nekkut yoon waaye am na ñu nga xam ne tamit interest am nañ interest mhm. parce que soo ekkati téléphone bi call la ne leen ñu ngee ñëw dinañ bàyyi seen soxla ñëw taxaw mhm. ñu escort la dugal la si biir maternity ward bi yëpp ñu ne ñun mhm. ñun jigéen ñi ñoo tax ñu jóg soo ñu ñoo jàppale si boor boobu tam ne pour ñu am accès pour ñu mun a xam naka ngaa mun dimbale nit ki parce que bala ngaa dimbale nit ki foog nga xam naka nga ko mën a dimbali lopitaan bu nekk am na problème yi boppam waaye ñun dañ bëgg a focus on maternal health bi at least réer si wàññi am na solo su ko defee mbokk yi ñu ànd ak gars jigéen jàppale jigéen seet bagage yi nga xam ne moom la gars yi dee joxe su ko defee ñu delsiwaat bu delsiwaatee nag dinañu jot téléphone nombas yoo xam ne képp koo xam ne bugg nga leen a jàppale ndax mun nga leen a kool sa ne ma ne jàppale jigéen la waaw man daal bu Banjul bugg naa leen a jàppale lopitaane Brikama bugg naa leen a jàppale lopitaane Serekunda maanaam ku ne daal war ngaa mun a jàppale lopitaan waxtaan ni suppa ñu bañ ko ñu dugga ñu am li ñu bugg a kas live learn boole ci gore dee bii dafa gaawu te amatut xale whatever you earn is what you deserve your deeds today suba moom ngay amee with some sympathy yow ñoo tane give them love bul bañ bul kale am am denkaane la yow bu ci buggee seddale mag ñi nga mee ci gune woon naa bu ñu jógee si break boobu noonu ngeen gis jàppale jigéen nu ñu jàppalee jigéen yi gambien yi su ko defee nag ñu ngi leen di ñaanal ñoom it yal na leen yàlla jàppale ba ñuy daa euh, jàppale jigéen yi gambien yëpp because xam nga ne am na fu ñu em te ñoom seen aîné mooy ñu wër gambien yëpp yàlla mën na ko yal na ko yàlla def su ko defee ñu bàyyi um, ana mu tàggatoo ba tey it bu dee am na loo xam ne daal bëggoon ga koo wax balaa ñoo tëj programme bi waaw um, ñun ñu ngi nekk fu mu nekk nii soo buggee gis lan la ñoo def ñu ngi si Facebook ñu ngi si Twitter ba pare am nañ nomba bu nga xam ne soo koolee mun nañ laa jox more information nomba boobu mun mun ñu ngi la ko won si sa screen bi mm-hmm. waaye pour gën a xam rek nomba bi mooy five thousand one three three suñ Facebook page bi tamit jàppale jigéen moo fa nekka jàppale ba pare nga am underscore jigéen bo booboo nekka suñ Twitter handle bi ba pare ñu ngi ubbi GoFundMe account waaw ba pare ñu ngi am Ecobank account number boobu dinañ leen ko defal si screen bi mhm. so ku nga xam ne dafa bugg a donate anonymously tamit bugga bugguloo see feeñ mun ngaa dem rek nga déposit ko si account bi képp ku nga xam ne duga nga si dinañ la wax fan na sa xaalis bi jaar ak at bi yëpp lan leen def dañ dee am newsletter defoon nañ newsletter dinañ génnewaat beneen suñ activité si ak yëpp ñu ngi gërëm ñëpp ñu si tiye ñu si mhm. tiye bari nañ di si biir si biti góor yeeg jigéen ñi ñu si compagnie mbokk yee ñëpp a ngi si téye ñu ngi leen naa gërëm te di leen di leen di leen ñaan ne ne dëkk bi ñun ñoo ko moom léegi foog ñu ni neen ñu dimbale wante ñun jigéen ñi ñun xam nañ lan leen jee daj ñun ñoo mun a dimbale suñu morom yi jigéen mm-hmm. ñu ngee ñaan nag bépp a jigéen gis si boppam ak lépp li nga mun a def pour digale dimbale jigéen ñi tamit si lopitaan yooyu nga def ko o mun nga ñoo kool ñun ñu seet naka la ñoo def ñu dimbale wante ah, pour pour pour boobu am na solo yal na ko yàlla def mm. ko defee Elias yow it ñu bàyyi la rek bu dee am na loo bëgg a si waxtaan bi ñu ngi lay déglu waaw waxtaan bi moom daanaka jeex na sant yàlla bi mu mm-hmm. bëri alhamdulilahi rabil alamin ana wax na yëpp la en tant que jigéen moom loo defal sa moromi jigéen rek sa bopp nga ko defal ah, at the end of the day mm-hmm. te xale boo séef tamit xamuloo ëllëg jigéen moom dafa jur rek waaye ki doom gi di jëriñ loolu yàlla rek moo ko xam mm-hmm. ba na loolu yëpp dañ ko war a bàyyi xel lu luñ war di sóoraale la si si ñoo ni ñoo jëflantee mhm. ak nit ñi ba tax na jot duy am nag surtout professionnel li fi ni ñun ñëpp jaar nañ ci xëy suba ba ngoon yaa ci sa activité jàmbur sa doom yi sax doo leen tal waaw waaye baax na rek tam léeg mhm. ñu jël time dem seet suñ moroom yi jigéen ñi mhm. suñ doom yi suñ niis yi suñ yaay yi niñ ñoo niñ mel ci lopitaan bi niñ fa niñ fa nekkee xam nga loolu soo ko defee dafa tax soo bëggoon a def benn sax nga ne xaaral ma def fukka lii ah, kat jar na ko parce que ñun mm-hmm. bëgguma dellu sax ci liñ waxoon waaye biñ ñu ooyee dañ ne ah association rek la dañoo jóg rek def li mm-hmm. waaye nag li Linguère suñ perception suñ gëm dafa change completely biñ demee bi gisal suñ boppa am na si ñun ñoo xam ne sax mm-hmm. am na biñ mujjee dem Brikama dafa émotionnel trop be dañ jooy mm. xam nga si nga really appreciate yow mm. li nga am ñun ni neen ñun su métier ba métier dañoo dem private mm-hmm. waaye nag ñeneen ñi ci ëppa mm-hmm. ñoo dem private te ñun ñu ñooñu ñu fi taaj ñoom ñu ñoo tax ñuy wax soo ñuy wax rek ne nañ gën a góorgóorlu mm-hmm. ñu gën a jàppa jàppa jàppa affaire yi rek ndax mu dem waaw su ko defee ñu bàyyi la eh, esta yow it nga tàggatoo ndik suñu waxtu bi fu mu ne tak man daal lu ma mooy daal dara tuuti tuutiwut. Mhm. xeebuñ dara ba pare tamit nit ki daal sooy def dara bul fiil ne li nga def dafa tuuti. dëgg the smallest thing li nga mun a def dina dem a very very long way si somebody else life am so foog naa comme ni ko Elias waxee soo amee jot nga dem si lopitaan bi léegi-léegi nga doxantu ji sax nga dem mee deret su fekkee ne wér nga su fekkee ne mun nga ko tamit te buñ em rek si lopitaan yi private yi mhm. nañ dem si biti nañ dem bi yoon Banjul ñu dem ñi seet lu nekk si dëkk bi am na solo am na solo su ko defee mbokk yi ñu nit fii la ñuy jaar gërëm di leen sant si programme jigéen bi nga xam ne saa su a ngi koy seetaan yéen a gis gars yi toog leen fi waxtaan li nga xam ne mooy jafe-jafe bi ak noo leen mën a jàppalee gars yi ñu ñuy jàppale jigéen gis ngeen ne macha allah benn jigéen rek boo ko jàppalee dafa mel ni jàppale nga jigéen yi yëpp kon nag ñu ngi leen di ñaan fu waaye munti nekk rek téléphone number baa ngi nii call leen ngeen jokkoo ak ñi nga xam ne ñooy jàppale jigéen du ñu fi jógee mukk te gërëmu kii gërëmun kii nga xam ne mooy Thérèse waaye di gërëm kii nga xam ne tamit mooy Omar technicien si di leen gërëm kooku nga xam ne mooy ah, mooy Maas Maas ñu ngi lay nuyu bu baax a baax waaye tamit di gërëm suma baj képp koo xam ne tamit jamono yaa ngi seetaan ñu ngi lay gërëm di leen jox dig daje incha allah beneen samedi lay doon jërë ngeen jëf ca biir gis naa